asalaamaaleykum wa mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp euh, mu mel ni am na mbokk mu doon laaj ci euh, nit ñooñu nga xam ne dañuy am jafe-jafe ngir naasu bu ñuy lekk ak bu ñuy naan yépp mu mel nii daal dafa am lu nekk ci seen put wi di lekk gi walla naan wi am na mu ci doon sàkku ay leeral laaj bu am solo la waaw li ëpp nag ci nit ñu mag ñi la la lay am waaw ñii nga xam ne jëm dañoo jëm mag teewul mun na mun na dal ku nekk nag waaw na dal ku nekk te da ngay am jafe-jafe jàllale li ngay lekk wala it li ngay naan eh, màndarga yi sax mooy xam nga li ñuy tuddee coroxaan coroxaan mooy ki nga xam ne lekk gi dafa bàyyi yoonam jaar ci yoonu cër yi nga xam ne seen njëriñ mooy dimbali nit ki ci muy noyyi kon lekk gi dafa dafa dafa bàyyi dafa bàyyi yoonam waaw loolu mooy waral coroxaan boo coroxaane nga sonn lool di sëqat waaw sëqat su metti sax xam nga loolu mooy coroxaan lekk lekk bu bàyyi yoonam wala ngay naan naan wi bàyyi yoonam loolu mooy coroxaan te boo coroxaanee rek ni mu lay dikkee mooy ngay sëqat sëqat yu tegle yu metti waaw waaye ki amee jafe-jafe bi moom ci coroxaan la dëkk waaye moom la muy coroxaane du ànd ak façon bi nga xam ne moom laa wax léegi nga ngay saqat sëqat su teg la fekk da ngaa coroxaan waaw moom comme ko coroxaat mooy lekk bu bàyyi yoonam la la ngay naan bàyyi yoonam moom li ci ëpp la muy lekk du jaar ci yoonam la muy naan du jaar ci yoonam waaye nag moom du ànd ak saqat du ànd ak dara waaw waaye lekk gi moom moo du moo du yoonam waaw dafay dafay bàyyi boli bi carrément foofu nga xam ne foo la a jaar dem ci estomac ba daf koy romb da koy bàyyi di jàll ci cër bi ñuy tuddee traché waaw nga xam ne moom njëriñam mooy fa ngelaw li ñuy noyyee di jaar xam nga loolu rek gàllankoor la te borom daf ciy dëkk waaw kon loolu dafa bokk ci ci màndarga jàngoro ji may may may waxtaane waaw bu yàggee nag mën na ko jural muy saqat ndax da ngay dem ba air ba ngay noyyee di jaxasoog yi ngay jëfandikoo ci wàllu lekk ci la saqat nag di tàmbali mu jural la saqat su metti foo toll. fekk fekk loolu moo ko waral li ci gën a raglu nag mooy mën na dem ba nit ki di fat waaw mën na dem ba nit ki di fat waaw wala muy wann muy wannaasu mbir yi di metti waaw wala daal nga am yëg-yëg ci sa bëli bu lay xaw a gêné foofu waaw wala nit ki dem ba buy buy lekk da ngay gis ay ay yuutam di génn waaw toll na ci ci am na ñi xam ne tollu nañ ci ci niveau boobu waaw waaw te suñ la defaloon palaat su ndaw rek palaatu ceeb wala loo mën a jëfandikoo loo mën a xewloo mën nga def ñaare waxtu rek pour pour añ waaw añ bu yàgg ngay añ ndax daanaka mënoo gaaw mënoo lekk-lekk gu gaaw kon boole ceeg eh, baat bu dee waaw borom baatam day dee mën na dem ba wax wax ju leer sax du ko du ko mënati wala mu jural ko tawat tawatu xuret eh, xeetu tawat yooyu nga xam ne dañuy jàpp dañuy jàpp poumon yi waaw mooy xëtër yi waaw yii nag yëg-yëg la yi nga xam ne ki amee jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane mën na koo yëg li koy waral nag li ci ëpp ay jàngoro yu nekk ci nit ki la mën na koo yëg mën na koo bañ a yëg li ci jiitu mooy balaa ñuy dugg ci jàngoro yi kay waral mooy wax naa sànq ci njëlbeen ne mag ñi la gën a yab kon képp ku jëm mag ndeysaan mun nga xëy loolu daal la si siñu siñu màggat la waa ndeysaan jékki-jékki rek am jafe-jafe lekk bu normal ndax dafa mel ni sa booli bi daam lu ca takk di xaj li ngay lekk wala li ngay naan jàll waaw bu ko defee mu jural la yooyu xeetu gàllankoor waaye yab na lool ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ji ñu tuddee AVC nga xam ne paralysé la bi nga xam ne genn wet gi lay faral di jàpp ñi ci ñooñu dañuy seetlu ñoom lii daf leen di yëpp xeetu jàngoro ju mel nii wala ñu amee tawat yooyu tawat boobu ñu tuddee Alzheimer ak bi ñu tuddee Parkinson waaw ay tawat li nga xam ne mag ñi la gën a yëpp waaw liñ ciy ragal mooy cancer bi nga xam ne dafa jàpp eh, cëru nooyukaay yi ci boppam waaw. Hmm. Eh, liñ ciy ragal tamit mooy jàngoro ju mel nii nit ki jaaree fa jeex wala yaramam manqué ndox ndax mën nga tiim lekk doo lekk ba suur wala nga ragal a lekk naan tamit noonu waaw loolu lañ ciy ragal mhm. moo tax yiñ ciy digle rek mooy nit ki di jëfandikoo ñu koy jox lekk yu oyof yu neex jàllale ñam wu xaw a ñagas daal yenn xeetu mburu yi demee noonu moom ëpp naa joxe ci ki amee jafe-jafe bu mel nii xeetu fonde yu oyof yooyu moom mooy gën ci moom ci wàllu ndékki waaw koy jël ndànk-ndànk jox ko kudd rek dina waaye lekk gu mel nii lu ñagas daal walla lu naqaree war naa su lu naqaree jàllale kooku kooku buñ ko ko jox nañ ko nañ ko moytu te lu mel ni sa mburu bu demoon ba koy lekk nañ xool lu nooy ci côté mburu bi ñu daggal ko ci te mu mu def ko loolu ñu tuddee poncé waaw mu poncé ko ba mu nooy jàllale ko kooku moom mën na koo mën na koo dimbale waaw poncé poncé ci sa sa mburu ci sa ataaya wala sa café wala sa wala sa meew waaw ñu ñu koy jox yooyu ñu tuddee purée lekk yu nooy yooyu ñuy tuddee purée purée bu pombiteer ak purée pataas yu demee noonu moom mooy tane ci moom ceeb bi waaw moom mooy tane mooy mooy tane ci moom wala wala supp waaw yooyu mooy gën a oyof ci moom bu ko defee ki amee jàngoro ji dañuy naxanteeg moom rek waaw su dee nag wàllu yiñ ko ciy digal yiñ ci mën a digle ci ci ko mën a saafara laaj de moo ci jiitu laaj bu xëy ñu jox ko képp la kemb laaj mu sàqami ko mu yéey ko waaw ko jàllale ko kooku dara gënu ko ci su demee ba yéey ba yéey laaj bi xëy na xaw naa jafe ci moom ñu fejar ko ba mu sew rek boole koog kudd gu ndaw lem mu jàllale ko kooku mën na koo dimbale wala ñu wutal ko naanaa mant takk su ndaw nga def ci sa kaas tàngal ndox ba mu tàng jër sotti ko ci kaw naana bi bàyyi ko ci biir ba mu yàbbee ci biir bu nugg bu baax nga yokk ci lem jox ko mu naan naan bi muy naan ndànk ndànk di naxante rek kooku it mën na ko ji dimbale waaw wala ñu wutal ko reeni fuuf waaw reeni fuuf ba defee mu xooj ko eh, xoojal ko reeni fuuf ci ndox mu yem mu di ko naan ñaari reen baax na ci ci doy ni ñaari kaasu ndox ba mu yàbbi ci ndox mi rek mu di ko naan nag par kaasu ataaya waaw di ko naan benn ñaar ba ñetti yoon ci bés bi wala noonu noonu ñu koy ñu koy ñu mel ni reenu foofu it mën nañ ko defal reenu dugóor moom it ñu xoojool ko ñaari ren mu di mu di ko jëlee noonu waaw kooku mën na ko ci dimbale kon nag jàngoro ji nga xam ne nit ki du su ci tollee du lu nekk lay lekk dañ koy jox eh, ci wàllu lekk surtout yi nga xam ne neex nañoo jàllale waaw moytu yi nga xam ne day day day favoriser day yombal coroxaan ndax suy coroxaan rek day day gën a sonn kon nag loolu lañ ci mën a indi ci leeral ci laaj bu am solo boobu ñu ñu laajoon xam naa balaa ma tëj waxtaan wi ma fàttali mbokk yi may déglu man professeur Abbas garab gi nga xam ne man maa ko liggéey dama liggéey genn garab tuddee ko laa roquette laa roquette nag garabu góor la faj wàllu néew kàttan moo ko yëkkati ci sëy góor ñi nga xam ne dañoo amee jafe-jafe jooju garab gi seen garab la